salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar ñu ñëw ak yéen ci revue de presse bi revue de presse bi oustaz Mohamed Konté moo leen koy may oustaz Mohamed Konté mii nag ku yàlla baaxal la day yëngu ci mbiru ñaan yàlla moo xam nga am tawat ci saw yaram boo jokkoo ak moom rek incha allah yàlla mën na laa defal saafara ca loole wala li nga xamante ni moo di ndoxum siti ba ci hémorroïde mi nga xam ne sonnal na ñëpp yàlla may na ko ci ak sunu mbokku jigéen yi nga xam ne dañoo nekk ci néegu sëy nekk ci jafe boo ko woowee rek incha allah yàlla mën na leen a dëppale ba ngeen am la ngeen bëgg ci moom wala lii di néew kattan ci néegub sëy yàlla may na ko ci xam-xam kon nag li ngeen di def moo di jël numéro yii ma leen di waaj a jox muy 77 330 17 58 wala nga jël 70 796 24 89 soo bëggee dem ca moom nag ni ngay def lu yomb na da dem ca géejawaay laajte rond point dalal jàmm boo fa demee rek incha allahu rabbi di nga gisante ak oustaz Mohamed Konté vendredi 17 juin 2022 ñu ñëw ak yéen ci revue de presse bi dooree ko stade di ñetti attaquant yi mu fësal yépp nag am nañu jaloore ci équipe nationale bu Sénégal ka njëkk di Mamadou Niang keneen ki di Papis Demba Cissé ba ci Sadio Mané mi nga xam ne jamono ji mi ngi def jaloore ci équipe nationale bu Sénégal Sénégal jaloore joojee ci la journal bi ñëw tey jii xayma nag ñoom ñett ñii kat li ñu football ci équipe nationale bu Sénégal bu ñu doon xayma bit yi ñu dugal ka ca gën a baax le nag moo di Papis Demba mi nga xam ne moom bu ñu doon xayma bit yi mu dugal ak li mu football ci ay match soo ko xayma lu mu gàtt-gàtt ñaari match yu ne Papis Demba Cissé dina ci am ab bit ñaareelu place ba Mamadou Niang moo fa nekk ñetteelu place ba ñancoo Sadio Mané mi fi nekk jamono ji moo fa nekk waaye Moussa Sawit mi ngi ci journal bi moom bu ñu xayma vraiment moom it moo gën la El Hadj gën la Henri Camara waaye nag kii di Papis Demba Cissé li mu football ci équipe nationale bu Sénégal taxu kaa bëri loolee waaye moo nekk ca bopp classement ba ndax am na fi ay bit waaye bu ñu xaymaa ñoom ñëpp nag li ñu dugal meilleur buteur équipe nationale bu Sénégal moo di ñancoo Sadio Mané moom moo ëpp lu mu dugal ci équipe national bu Sénégal waa FIFA tamit ñoo ngi ci journal bi ñoom nag tey dañoo xëy beccul ñu li nga xamante ni mooy prime yi neexal la ko olof di wax loolee nag mi ngi soxal coupe du monde bi koo xamante ni sab équipe nationale dem na ca coupe du monde ba boo génnee ci sa li ngay am ak boo demee huitième de finale quart de finale ba ca finale ba kenn ku ne li nga war a am journal bi indil na la ko waaye la mu becc ca xër wu njëkk wa moo di ku jël coupe du monde bi moom sa équipe nationale dina am vingt six milliards ci francs CFA. ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futur Média fekk fa record yéenekaay Patrick Vieira la fësal ca xër wu njëkk wa toj na équipe nationale bu France na moom nag jamono jii dafa ñëwoon ci Sénégal ci club boobee ñu naan jàmbaar bokk na ci ñi ko moom waaye kat journaliste record yéenekaay yi bàyyiwuñu ko mu dem wax na ci équipe nationale bu Sénégal nee na équipe nationale bu Sénégal bii de équipe bu baax la te mën naa am lu rëy ca coupe du monde ba wax na tamit ci ñaancoo Sadio Mané nee na Sadio nag dañ ko war a considérer maanaam dañ ko war a boole ci ballon door bi ndax def na saison bu baax wax na tamit ci joueuram bii di Cheikhou Kouyaté mi nga xam ne moo koy tàggat ci Crystal Palace nee na Cheikhou Kouyaté nag professionnel la mën na la muy def te gëm na ko te neex naa liggéey lool ñu jugee Sénégal wuta wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport Paul Pogba la fësal ca xët wu njëkk wa moom nag mer ba futtu la def di fa becc ay kàdduy dëggam waxtaan bii nag ma ngi ko séqoon ak Amazon journal bii di Mirror Sport xëy beccil ñu ko li mu xam xamle moo di waa Manchester United bëgguñu ma tey bëgguñu ma suba li ko waral moo di kat bii mooy ñaari yoon ma fay jugee gratuite te ab sóor kat soo ko bëggee waroo bàyyi ba contrat am jeex ngay waxtaan ak moom naan ko kaay ma yokkal lool jekk waxaale wo ak moom bàyyi ba muy waj mariage am nga ni ko kaay ma takk la loolu nag ku ko def ku nekk rek bëggoo ki nga nekkaloon moo tax kan man mii li ma jàpp moo di waa Manchester United bëgguñu ma nañoo bàyyi ba sama contrat jeex tàkk ñu ne ma kaay yokk loolee nag man du ko def ndax sentir naa ne club bi kenn bëgguma fi waaye nag loolee ñu def dinañu ko réccu fa ma jëm bu ma fa demee dinaa fa wane sama bopp ba ñu réccu lu tax ñoom teelu ñoo waxtaan ak man ngir ma xaatim ca club boobee beneen contrat fa mu jëm moom nag xamaguñu ko waaye Juve la gën a jege ngir dem ñu jugee Londres Angleterre wutali France fekk fa l'équipe Leonardo la fësal ca xët wu njëkk wa moom nag nekkatul directeur sportif bu Paris loolee nag officiel na mën nañu ne naam siiwaluñu ko waaye doomu Brésil bi kat moo sàkku ci club boobee ne bu ñu siiwal loolee dàq ma képp jarul ngeen koy siiwal ba ñu jubo ci kàddu moom nag ma ngay wax jaar-jaaram nee na ñëw nañu ci club bii am na lu ñu ci jot a def nag Lionel Messi indi nañu ko ci club bi waaye nag laata muy indi Messi si fa mu jaar wax na ko nee na indi nañu fi ay gone ku ci mel ni Asraf Hakimi Nuno Mendes ak Gigio Donnarumma ñëpp ne gongo ñu ne déeta waaye ñu indi soo Ramos mi nga xam ne bokkoon na ci défenseur yi man waaye kat bi saison bi jeexee waa Paris googee doon ma tagg dañ ma doon xaram ndax bi saison bi jeexee li ñu xam xamle moo di Messi màggat la Ramos màggat la lu tax nga leen di indi ci club bii te bi Messi ak Ramos ñëwee ñoom ñëpp kontaan ci loolee kon nag diggante ba jeex na ci diggante Leonardo directeur sportif ñu jugee France wutali Portugal fekk fa Oxogo Fabio Vera la fësal ca xët wu njëkk wa gone gi nag Arsenal jël na ko jubóo nañu ci lépp muy Arsenal ak Porto déwén incha allah Arsenal la gone gi di football la ñu jubóo nag jamono jii mi ngi toll ci trente cinq millions d'euros waaye kat bu ñu ca boolee bonus yaag ya ca aju dina mat quarante millions d'euros kon daal gone gi jamono jii may wax ak yéen ma nga ca Arsenal tey jii lañu ñu bëgg a def visite médicale su lépp yembee mu xaatim contrat foofee ñu jugee Portugal wutali Espagne. Espagne wàcc Madrid fekk fa marka Marca yéenekaay Valverde la fësal ca xët wu njëkk wa séq ak moom waxtaan bu yaatu la ñu ko njëkk laaj nag moo di ci ballon d'or bi nee na ballon d'or bi de équipe bu Real de Madrid yi onze yëpp mën nañu koo jël kenn ku ñu ko ci jox rek baax na moom mii nag lañ ko doon woowee ba muy ñëw mooy picc bu ndaw bi léegi nag màgg na nekkatul picc am tan la li ko waral moo di ma ngay doxal ci Real de Madrid waaye laaj nañu ko tamit ci passe bi nga xam ne defal na ko Vinicius ci final bi doon dox ci diggante Real ak Liverpool nañu ko da doon paas wala da nga doon dóor mu ne l'essentiel daal moo di dóor naa bal bi Vinicius dugal na ko jël nañu ko bi loolu moo am solo waaye nag nee na Real de Madrid moom du ko fàtte mukk ci àddunaam ndax club boobee jàppale nañu ko bu baax a baax ba fa ñëwee yëf yi métti woon na lool waaye mu gëm ko waaye kenn du soxnaam soxnaam si ñuy wax Mina nee na Mina moomee jàppale na ko bu baax a baax saa su mu métti lool daf naan ko muñal bise ngi ñëw dina baax jamono ji lépp baax na ñu jugee Marca yéene kaay jël AS yéene équipe bu Real de Madrid bi la fësal ca xët wu njëkk wa mat na sëkk nag amatul place ca club boobee loolee nag président bi moo ko xamle ginnaaw bi Tchouaméni ñëwee Antonio Rudiger ñëw li président wu Real de Madrid xamle moo di club bi nag arrêté nañu jënd gi ndax place amato fi xanaa ñu jaay ay jour su fekkee jaay nañu ay jour daal su place amee ci club bi dinañu jënd ay gone indiwaat waaye jamono ji moom place amatu fi tëj nañu buntu yi Alvaro Morata it bi moom nag day jógee ca dajale woon ci Juve jeex na te option d'achat bi waa Juve nee nañu mënuñu koo def ci moom kon gone gi day delluwaat ca Atlético de Madrid ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa Esport Gavi 2026 loolee nag jubóo nañu ci réunion ba amoon démb ci diggante Ivan de la Peña moom mooy agent wu Gavi moo doon jàkkaarloo démb ak président wu Barcelone waxtaan nañu nag ba jubóo Gavi dina xaatim beneen contrat waaye kat contrat boobee dafa am ay sart yu ca am ndax salaire bi nga xam ne moom la Gavi di fayeeku day aju ci doxalinam maanaam suñ ko dugalee ci terrain mu football doxal bu baax bu saison bi jeexee dinañu xayma xool su fekkee doxal na ñu yokk salaire bañ koy fay ci loolu la ñu juboo saison bu nekk nag dañuy xool nu muy doxalee rek ci loolu la ñuy xool ngir yokk salaire bi nga xam ne moom la ñuy fay kii di Gavi contrat ba mu fa noppi ngir signé ko nag mi ngi toll ci ñeenti at kon daal juboo nañu ci lépp waaye offre bi nga xam ne waa Barcelone yóbbu woon nañu ko ca Bayern de mu nekk ñaareelu offre waa Bayern dañoo gàntal la ñu xamal Barcelone moo di lii ndaw na Jules Koundé mi nga xam ne Xavi moo ko bëggal boppam mu nekk ca Séville Jules Koundé moomee waa Séville nee nañu xaalis la ñu bëgg bëgguñu ay jour Barça su ko bëggee na génn xaalis ñu jaay ko ñu jugee Esport jël Mundo Deportivo assemblée général la Barcelone amaloon démb ca këlëbam boobee dajale ñëpp nag ngir waxtaanee ëllëgug Barcelone loolee nag toog nañu waxtaan te xayma nañu xaalis bi nga xam ne jàpp nañu ne suñu ko amee Barcelone dina teguwaat fa mu nekkoon xaalis boobee nag bu ñu ko xaymaa mi ngi toll ci huit cent millions d'euros ba sept cent millions d'euros la ñu jàpp moo di somme boobee suñu ko amee Barcelone dina teguwaat ci yoon te jamono ji nag yoon woowee fa la ñu bëgg a teg Barcelone moo tax dirigeant ya ponkal yëpp dañoo dajaloo ngir xool ni ñu suqalee Barcelone. ñu jugee Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport Inter ma ngay daw de te romb na gaañi li mu bëgg moo di kat Lukaku ñëw foofee ca club ba dellu si waat fa di Dybala mi nga xam ne ca Juve la nekkoon waaye agent libre la jamono jii ña ngay baral jéego yi ba ci Mkhitaryan Inter ña ngay liggéey ca loole la ñu bëgg moo di ñoom ñett ñooñee ñëpp ñu ñëw ca club boobee jàppale Inzaghi waaye Juve nag xam na loole moom it baral na jéego ya ba Paul Pogba jubóo na ak moom ci lépp ngir kat ba dellu siwaat ca club boobee mu nekk gratuit nag nekk ñaari yoon yoo xam ne ma ngay dem ca club boobee te Juve du ca def dara dañuy waxaale salaire rek mu fay ko. ñu jugee Corriere dello Sport dem Torino fekk fa Tuttosport ñëw gi nga xamante ni kat Paul Pogba ma nga ko ma ñëw ca Juve te Corriere dello Sport di ko wax. moom la Torino dëggal tey jii ka ko dëggal nag moo di sóor bi ci boppam di Paul Pogba nee na biddéew bi nga xam ne mooy leeral yuufe man mii la kon moom daanaka ñëw na foofee te dëggal na ko loolee nag waxtaan bi nga xam ne Amazon la ko séqal fa la beccee kàddu yooyee muy Paul ba Juric si mi nga xam ne mooy tàggat club bii di Torino moom li mu xamal doomu Italie bi di Joao Pedro moo di jogeel ca Cagliari nga ñëw fii ci Torino ñu liggéey ci fàttali Cagliari dafa wàcc déwén Série bu mën la muy def la xam naa ne du bëgg a jógee ca Serie A ba moo tax waxtaan ba ubbeeku na te juba mën naa am ñu jógee Torino wutali Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport Pioli may tàggat AC Milan la fësal ca xët wu njëkk wa la mu xamle nag moo di scudetto bi bàyyeegu ma la de ndax maa ko jëloon te ñam naa ko neex na bàyyi naa ko amul fenn maa ngi ci ay vacances nag waaye maa ngi waajal waaye vacances yi ma nekk musuma am vacances yu neexee nii li ko waral moo di championnat Italie bi nga xam ne club bi may tàggat moo ko jël loolee neex na lool moo tax nag jamono jii damaa yàkkamtiwaat sax championnat bi door ba ma commencé liggéey ak gone yi nga xam ne ñoom laa doon tàggat jamono jii dama leen namm lool kàddu yooyee Pioli may tàggat AC Milan moo ko yëkkati jox ko waa Gazzetta dello Sport gaa ñi yëf yi foofu la buuree ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ci kanam ak beneen vidéo incha allah waaw kon euh, mi ngi noonu tey tomb yooyu lañ leen indiloon euh, ñu ngi tàggatoo di wax na dinañ ñëwaat ak beneen façon ak beneen waxtaan dinañ ñëwaat euh, te li ñu tax a jóg rek moom mooy dimbalante ak jaamu yàlla yi ndax ñun xaalis taxu ñoo jóg waaye li ñu tax a jóg rek mooy dimbale fexe ba jaamu yàlla yi ñi feebar ñi faju ñi di ñi wér ñi am problème ñi fexe ba seen problème dañ ñi nga xam ne dañu am problème seen néegu sëy ñi fexe ba seen problème yee jeex ñi am problème kayit ñi fexe ba seen problème yee jeex ñi am problème wërsëg ñi fexe ba seen problème yi jeex parce que dëkk bi dund gi cher na pour nga mën a dund force nga am xaalis kon boo amul day métti kon euh, ñu ngi tàggatoo foofu daal di wax ne képp koo xam ne bëgg naa jëflante ak ñun boo ñu wooyee ci numéro yooyu noonu dinañ jëflante ak yow dinañ wax ne seen mbokk la oustaz Mouhamed ñoo ngi ziyaare ñëpp di baalu ak di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu